salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte ànd ak yéen euh, di leen ziar bu baax a baax ñu ngi fii ci Nouakchott euh, capitale république islamique euh, bu Mauritanie ci musée national bi nga xam ne nii mboolem taalibe murid yi tey ñoom ñoo fi daje di fi amal ay exposition yoo xam ne ni mi ngi jëm ci liggéey ak tamit xamale nit ñi li nga xam ne moom la sëriñ Touba Khadim Rasoul Eh, doon jàngale fii ci gànnaar waaye li mu fi liggéey lépp ba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fekk ko fi jox ko yódu maxuus nga xam ne moom mooy mbégte murid ji tey nga xam ne fii dañ ko fee indi woon pour mu toppese waaye ñu dem ba fekk ne maanaam li mu fi jàng lépp dañ fee bàyyi lu mu maanaam ñi koy fay far topp Sarsara di bërëb boo xam ne nii Euh, bërëb la bu bëri ay kéemtaan ci sunu mbokk naar yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoo ñu ko xamal waaye nag am na ci ay yeneen bagage yoo xam ne nii euh, wax nañ ne ñu ngi génnut sax d'après ci li nga xam ne moom la ñu am fii ci directeur musée bi euh, moom rek la ñuy wax keroog nii liggéey bi des na lu bëree bëri ñoo xam ne maanaam génneeguñ ko ndax mbiri sëñ bi moom xam na ne géej la waaye nag dañ ci fas yéene ànd ak sunu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii euh, ci euh, Mauritanie ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo amal exposition bi nga xam ne euh, ñu ngi ko amal ci liggéey juróomi fan la toll tey nag ñu koy tëj mbokk mi ñu ngi lay nuyu di la ziar nga fàttali ñu sa tur rek ñu lay dalal ci plateau bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci musée national bi. commission Sarsara bu fédération Cheikhul Khadim bi nga xam ni moo nekk fii ci Mauritanie yàlla dogal màggal gi nga xam ni moom lañ fi def muy màggalu Sarsara ah Cheikh Salihu Mbacké ibnu Khadim Rasoul joxoon ndigal waa Mauritanie ngir ñu taxawee màggal gi waxoon nañu nag maanaam ci taxawaay bet na ngeen ko yaatal ci taalibe ak jullit yëpp loolu waral tey jii mbir mi egsi fii mu wér ñu ni it moom dana dem ba kawe njort ndax ndigalal sëñ Touba la ndigalal sëñ Touba moom ah dem ca kanam rek dañ tuwaa tànk kanam la am la yéen ak euh, autorité mauritanienne yi euh, muy ci musée bi nga xam ne moom la nekk am na ay liggéey yoo xam ne yéen a ngi koy avancé ci li jëm ci euh, li nga xam ne moom moo fi nekkoon ci bagage yi sëriñ bi daan jëfandikoo waaye li mu bind nee nañ am na loo xam ne sax génneeguñ ko ndax ñoom dañ koo denc di ko barkeloo fas yéene cee waxtaan ak. kilifa yoonu yoon wi ni maanaam murit yi ñu mën koo baaxee taalibe yi waaw waaw loolu moom yàlla dogal ñoom ci seen bopp wax nañ ko ci ñëw yi nga xam ni yenn kilifa yi murit dañ fiy ñëw eh, ba ci ku mel ni seen Bass Abdou Khadre nga xam ne bis bu fi jamono yu mu fi ñëwee dañu ànd eh, dem ci baadiye yëpp fi naar yi nga xam ne wet gi sëriñ bi féete muy wetu bu limit sar bokk ci ak yeneen gox ah, moom loolu lii ni nga ko waxee rek noonu lañ ko waxee ngir am na ay mbir yoo xam ne sëñ bi bàyyi woon na ko ak ñoom. yoo xam ne ba tey mi ngi ñoom te ñoom génnee bu ñu ko loola nag ñoom am nañ yéeney jox ko yoonu murit waaw am nañ yéeney jox ko yoonu murit kon ni nga ko waxee rek noonu la demee waaw jàpp nañ ne daal moom sëñ bi moom li nëbbu ci moom moo ëpp fuuf li feeñ ci moom euh, ndax ren euh, musée bi exposition bi ngeen fi amal da ngeen ci da ngeen ci développé ay thème wala bés bu jot euh, benn thème ngeen di jël càmbar ko ba tey ñi ngeen koy tëjee wala bokk ren édition 2019 euh, bu màggal ziar Sarsar bi dafa am thème spécial. waaw moom am na thème spécial muy mafhum tasawuf fi taalim Seexul Xadim maanaa ah, dégg-déggu tasawuf ci njàngaleem sëñ mhm. mu mel ni xam ne comme ni ñu ko mën a waxee daal. Mhm. maanaam sëñ bi moom lan la tuddee tasawuf. ak nan la ci jàngale mhm. loolu mooy li nga xam ne mooy thème principal bi nga xam ne mooy thème ren mais ci biir loolu it nag comme dañ fi nekk semaine boo xam ne day mat sëkk duñ bëgg dara vidéo wax dëgg yàlla dañuy bëgg semaine bi fees dell am jàngaleem sëriñ bi mhm. loolu mooy waral bés bu nekk mhm. waaw dañuy indi benn thème boo xam ne dañuy jàpp ni bu ñu ko jàngalee dana amal njariñ taalibe yeeg jullit yi mhm. ñu invité fi sunu mbokki jullit yi fi nekk yëpp ak mbokki taalibe yi muy naar yi di yeneen mbokki tarixa yi nga xam ne ñu ngi fi tarixa tijaan xaadir ak laayee nag mboolem tarixa yi nga xam ne daal ñuy yëngu ci Sénégal mhm. te seeni taalibe ni ci réew mhm. dañ leen di invité ñu fiy daje mhm. di waxtaane sëriñ bi ak njàngaleem loo xam ne li daal dinañ mën a yokk suñu diine saa su nekk xam naa nag bokk na tamit ci liggéey bi nga xam ne moom euh, ñu ngi ko sóob fële ci euh, Sarsara mhm. muy naan benn juma euh, ak tamit kër loolu est-ce que bokk na ci seen mébét ngeen mën a yeggali lu ni mel yéen ñi fi teewal yéen ñi fi nekk di jàppale sëriñ Sidi waaw loolu moom mbir la moo xam ni sax ci sëriñ bi la sosoo mhm. ak fédération bi nga xam ne tey jii moo fi nekk njiital fédération bi di Serigne Cheikhouna Gueye ñuy ñaan yàlla suñu borom kàttal nañ ko kàttal nañ mi fi nekk yëpp rek mhm. ba loolu ngay wax muy naal ñu fa ko mhm. muy jàkka joo xam ni tàmbali nañ ko am na fu mu yàlla ak bëgg faa def mahadara muy maanaam institut boo xam ni ah, mboolem sëti Serigne ak seexi sëriñ Tuubaa yi nga xam ni seen njaboot dañuy ñëw nekk ci baadiya bi ci naar yi di fi jàngee àllum na gànnaar bi ah, bu loolu noppee ñu mën faa daje ñoom féete fa ah, ñu faggu ñu leen di jàngal foofa mu doon barab boo xam ne maanaam lépp loo xam ne war na ci ñoom danañ koy mën a def di ko taxawee njàng ma mi ñu leen fi indéet ñu koy mën a defee foofa ak def fa it barab yoo xam ne ay daluwaay lay doon ba kilifa gu ñëwati Sarsara di am fooy mën a dal loolu mooy li nga xam ne mooy suñu yéene ak mébét bi nga xam ne tàmbali nañ ko Sarsara di ñaan yàlla suñu boroom rek defal ñu kartan ak xéewal yu kara njort yoo xam ne dinañ ko mën a taxaw ba mu àgg ci darajay sëriñ bi loolu daal la ñuy ñaan di ci wow ñëpp nag mboolem julli ji ak taalibe yi képp koo xam ne kii maanaam man nga cee jàpp rek nga jàpp ci ngir jëmi sëriñ bi rek te sëriñ bi moom jëmu la joo xam ne moom ko lebal mu fay la. moom dafa am pay ñemewul bor. waaw jërëjëf fàttali ñu tur bi. Duga Thiam di. coordinateur Sarsara. jërëjëf euh, Serigne Ndiouga Thiam euh, dégg ngeen kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko muy jëm ci exposition yi nga xam ne nii amal nañ ko euh, fii nag ci musée national bi am na ci ay bagages yoo xam ne ñoom ñu ngi ciy dox waaye nag maa ngi ak sunu mbokk. mi nga xam ne moom mooy Moulay su ma juumut bi noonu la Moulay la waaw Moulay di sunu mbokk moo xam ne at mu jot ñu taseeg moom mu fas yéene tamit waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom moo am fii ci musée national bi Moulay salaamaaleykum. waaleykum salaam Ah, ñu ngi lay dalal di la am di amati mbégte ànd ak yow fii ci exposition yoo xam ne ñu ngi koy amal saa su ne. vraiment man it am na kontaan naa. kontaan mhm. naa trop ci guddi gi. Mhm. guddi yàlla la. wax waxu yàlla rek lañ fi wax. Mhm. jëf ñu fi def yëpp. it lu méngoo ak sharia la. nit ñi it ce que j'ai remarqué nit ñi bari ñu ren parce que déjà gis naa ñetti kaar. tolloon nañu jamono fii benn oto mooy yow. buy jógee Sénégal. wala benn kaar ànd ak moom. léegi alhamdulilah xam nañu Sarsara jëm na kanam. ni ko wolof di waxee luy raab ci ñago jëm. Mhm. waaye kii day gën di alhamdulilah rek avancé. Mhm. alhamdulilah. waaw Moulay euh, tey mu mel ne dafa dafa tombé euh, que yi nga xam ne yéen doomi réew mi nekk fii ci gànnaar jaxasoo bi ngeen jaxasoo que mbokk yi nga xam ne moom mooy mbokk taalibe murit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal waaye am ñenn ñoo xam ne dëkkandoog yéen fii jaxasoo boobu am na yan liggéey ngeen di préparé ci li nga xam ne da ngeen koy yeesal jëm ci liggéeyub sëriñ bi. waaw ñun euh, ñun euh, waa Matam Moulanas précisément parce que man Matam dëkk ñun am nañu alhamdulilah aada boobu ne at bu ne bu waa Sarsara ñëwee dañ leen di gàttandu gàttandu googu nag dafa am fu ñu koy wéer mhm. mooy d'abord voisinage bi ne diggante Mauritanie ak Sénégal Sénégal ak Mauritanie benn réew la et mhm. ensuite diine bi ñoo bokk diine alhamdulilah ñoo bokk lu ñu woote woote yàlla lu ñu woote ñun yëpp euh, yàlla mu def it Sarsara ak Matam Moulanas douze kilomètres moo dox seen diggante mhm. te xam nga li yàlla wax ci ci ci àqu jaar àqu dëkkaale eh, bu fekkee ni dëkkaale yi mbokk am na ci ñun diggante ak Sénégal am nañu ay mbokk yu ne fële Sénégal yi am nañu seen mbokk yu fii sëriñ yi am nañu seen taalibe fii sëriñ yi am nañu seen taalibe yu jógee fële ñëw di leen di sisa di leen di siyaara kon diggante Mauritanie ak Sénégal li ma ci gis mooy jàmm rek ñun mënuñu lu dul perte waa Sarsara di leen wax nañ dal ci jàmm ak salaam fii ci Mauritanie ci seen xaaji mhm. euh, Misri wala boog euh, yow mi nga xam ne yaa ko teewal fii tey euh, comme ni nga ko waxee teeru bi ngeen teeru mbokk taalib yi nga xam ñi ngay ñëw foofu noonu ca Sarsara am na tamit loo xam ne nii maanaam mi ngi ko beral ki nga xam ne donc moom mooy soxna si ndax wëllëreem la at mu jot buy jaar sax Sénégal danañ déggante ñoom ñaar bu doonte bu gisante wul foofu noonu naka ngeen di waajalee teertu bi foofu noonu. alhamdulilah tartabi lu ñu ko daan defee rek jëm kanam rek incha allah parce que ren ñoo ngi prévoir ne 1500 personnes incha allah 1500 visiteurs war nañu ñëw Matam la yooyu jëm jël nañu ay jumtukaay yu jot yu mat alhamdulilah pour moom mu demee ni mu war a soxna si nag moom alhamdulilah xam nañ ko ci ngóoram xam nañ ko ci jàmbaaram moom comme ni ko kenn waxee léegi moom mooy Gaynde Sarsara moom nekk na ci boobu ba léegi dina fa ñëw daan na fa taw. waaw bu ma waxee son si kaay xewlu mu ne ma déet man nañ kaa yi taalibe xewlu ba pare loolu vraiment c'était une surprise surprise bu man mhm. gis naa jigéen boo xam ne bëgg na li mu def fonk na li mu def ay liggéeyal yàlla it ku ko xam euh, duñ la ci mën a wax dara mhm. moom mos dolli rek la mhm. wala day wax ne mag du fecc yàlla naa dee boo gisee ñuy jógee Sénégal ba fii dafa am lu ñu mos fii ci kanam lay jëm te war dem kanam parce mooy berceau du mouridisme uh-huh. foofu la mouridisme alhamdulilah foofu la yonent sallallahu alayhi wa sallam feeñoo uh-huh. jox ko jahran le mouridisme uh-huh. foofu la ko jox ko jahran mouridisme waaw mu laay am na benn taatagin boo fi boo fi génne woon uh, loolu noonu fu mu toll ak nan la ko murid yi apprécier waaw amoon na tatagun bi ma def amoon na it eh, beneen contribution bu ma defoon màggal la dernière fois mhm. je pense que diggante Mauritanie ak Sénégal loolu lépp xaj na ci mhm. diggante dama bàyyi diggante mbokk man Sénégal laa judd Sénégal laa yaroo mhm. je suis même lu ne nekk na nekk na ma Sénégal ah, sama sëriñ it mu ngi Sénégal man mënuma lu dul bu Sénégalais yi ñëw fi ma bég ci am ci contentement jàng naa ak ñoom def nañu école ensemble donc vraiment moi je, je vis je vis les Sénégalais ici en Mauritanie et comme les aussi la Mauritanie Mauritanie et le Sénégal c'est le même pays hein d'ailleurs l'économie encore est en de nous unir waaw xam naa ni bu gaz bi ñëwee léegi mhm. xam naa ne loolu yëpp dina tax mu gën a suñu diggante dëgg la voilà vraiment euh, euh, sëriñ yi mhm. liggéey nañu trop bu mhm. politique liggéeyul jërëjëf mu ko vraiment. jërëjëf Moulay dinaa ñëwaat ci yow ci kanam tuuti ak suñu beneen organe boo xam ne ñu doon fas yéene waxtaan ak yow bul sori xam naa ah, euh, mu nekkoon rek Moulay suñu mbokk moo xam ne ni maanaam euh, at jot ñu muy ànd ak ñun fii ci maanaam musée waaye di ñu gunge waaye tamit di ñu teeru fële ca Matam Moulana comme ni ko waxee waxtu yi ñuy wax ak yéen nag soxna si maam Issa Mbacke euh, moom mooy jël kàddu ñu di wax ak autorité yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew Mauritanie waaye tamit nag nekk ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Sidi moom Serigne Murtada moom mi nga xam ne moo fi teewul xalif général des Mourides moom itam mu am mbégte lool di ko di ko gis ci wetam saa su ne ci liggéeyam Sarsara bi kon nañu ànd rek teewlu ko euh, bu ko defee ñu daal di jëlaat suñu yeneen mbokk invité yoo xam ne danañu ànd ak ñoom léegi. وإن سرفت بالإله صلبا لجاد بالتوحيد ربي الأهد مسجاد لي بخلوة الأولاد di jéglu baax nag Serigne Sidi ndax eh, tey yàlla dafa dogal saa wu nu ñëwee Sarsara mooy bis bi nga xam ne sëriñ Sabara Fall daf ci sant Cheikh Massamba ci la xëy nekkoon ba waxtu wii yow itam nga dagg sa it fekk ñu fa loolu rëy lool ci ñun. nga wax soxna si ne ko loo sonn sonn miise ba munoo fa bañ a jaar loolu moo tax mu ñëw teewe si ko mi ngi ànd ak rakkam sëriñ Modou Kara moom sëriñ Modou Fati xëri mu Seex Mazamba mi ngi ànd ak sëriñ Bay Jale Sarr di sëtub sëñ Bay Sarr ci njaareem ñépp xam ko ñu ngi ànd ak soxna Ndey Mbàkke mu soxna Bintu Madina ñu ngi ànd ak soxna Ndey Seynu Mbàkke mu sëñ Modou Fati xëri ñu ngi ànd ak soxna Maymuna Buso mu sëñ Seex Buso waaye ñu ngi ànd am soxna maam Asta Mbacke moom Serigne Baara moom sëriñ Mamor Diarra waaye itam ñu ngi ànd ak kilifa yu bari yoo xam ne soxna Ajaratu Faama Lo mi nga xam ne moo nekk Dakar mi ngi ànd ak soxna Mbène Mbacke ànd ak soxna maam Aram Mbacke mu sëñ Modou Fati Xari ak mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne jàng jàngati xasida yéeg si karkat yeeg waa presse beeg ñëpp wax dëgg yàlla ñu ne kàddu yu dañuy ubbil soxna si rek xanaa liñ ci bëgg a wax rek mooy. Euh, soxna si moom toppe damay wax toujours nee na moo ko gënal jiitu ndax dane waajur mu tedd sëñ Abdou Lahad dane loo am àttan koo joxe ngir yàlla foo geesoo gis ku la a jox ngir yàlla loo am àttanoo koo joxe ngir yàlla boo doon wër àddina gis ku la ko àttan a jox ngir yàlla moo tax nee na moom toppe moo ko gënal fuuf yilife moo tax sëriñ Sidi soxna si nee na ñu ngi lay waxal ne sëñ Masamba sëñ Tuubaa doon sëriñam sëñ Modou Fati xaritam ba mu fi nekkee ku fi nekkal Serigne Touba yaay sëriñam nee na loolee maamam doon def bàyyam di ko def rek ci la nekk muy ak taalibe sant gi sant Mbàkke da ko def ak la xasaay ndax nee na Cheikh Mamadou Fadl daa waxoon ne biatu bu nu watee bil ara bil irada lakum li kay on sabi xarxel aada ba wax ji jaay naa sama njureel jënd ko ak taalibe te xam naa ne moo sakkan la ma bëgg nga faye ma ca nag mooy lu xotti baax Sëñ Tuubaa ne ko defal naa la ko kon nee na moom itam jaay na aw santam laxasoo ko di taalibe ne ko sëñ Masamba doone woon rek loolu rek mooy ay taxawaayam nee na mi ngi ci sa ginnaaw fas yéene laa jàppale ci liggéey bi insha allahu taala te du la ci te loolu yaakaar naa mu ne wax na ko. yéen samay mbokk yu góor ak samay mbokk yu jigéen samay sang yu góor ak samay sang yu jigéen ñun ñëpp nag mujj nañu xam ni xew-xew Sarsara bi mujj nañu fàng ci kanamu ñëpp. di xew-xew bu diine bu ñuy taxaw di ko fàttaliku at mu nekk fu nekk ab délégation jóge fa ci way fasanti koy gox yi ngir teewe si ko di barkeelu ci barke ki ñu te kooku mooy wéerukaayu royukaayu def yépp di wéeruwaayu borom xel yi ak nit yàlla yi mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mu doonoon xeexkat bu mag di sëriñ bu siiw boo xam ne aw siiw na ci mboolem réew yépp moo xam réew mu weex moo xam ne ñuul la aw turam siiw na ci liggéeyal islaam aw turam siiw na ci xettali bindeef yi ci fiiru koloñaal bi waaye du noppi ci xelum kenn ci ñoom ni sëriñ bi ba muy nekk foofee nekkoon na fa ci nekk gu lëndëm ak naqar waaye li mu doon lëndëm lëndëm daf daan jokkoo kilifa yu mauritanien yi borom xam-xam yi ak senegal yi jokkoo goo xam ne te kooku la kon Serigne Touba en tant que nañu jéem a ko ci ay jikkoom sunu kemtu lay kàttan te takk sunuy laxasaay dox te jubal te jottali wooteem yu yeesal diine islaam boole kooku lu jëf ay ndigalam te sori ay tereem te nu jàppalante tey liggéey. te ànd tam ànd kooku cofee ak joxe addiya te nu war maa damte te yéeneente jàmm bala maa jeexal nag dinaa nuyu sëriñ bu baax muy sëriñ Sidi Mbàkke bu man gan di doomi sëriñ Mourtala Mbàkke muy doomi sëriñ Touba dal na yàlla yokk leeram si Mbàkke di nuyu nag njiital ministère national bi muy monsieur di nuyu njiital daayira sëriñ Touba bi muy sëriñ Cheikhouna Gueye di nuyu bu baax sëriñ Amadou Mbàkke di ko jox wàcc waay mi ko yàlla jox di nuyu bu baax sëriñ Xaadim Mbàkke di siyaare bu baax sëriñ Modou Faty Khary mu Cheikh Abdou Lahad mu sëriñ Modou Faty Khary Mbàkke maa koy nuyu bu baax gis naa ba léegi Cheikh Abdou Mbàkke mu sëriñ Dame Atta maa ngi lay nuyu bu baax Mbàkke di la jox sa wàccuwaay di nuyu bu baax soxna Maam Mare Mbàkke ak soxna Bintu Fall di nuyu bu baax Bassirou Amar ak délégation bi euh, di nuyu di joxe nag mboolem ma àndal muy góor ñi muy jigéen ñi di ziyaare bu baax délégation bi nga xam ni moo jóge Darou Mousty sëriñ si di Mbàkke loolu maa ngi la ci sant bu baax daaw jéeg dama laa ñaanoon ne la Mbàkke nañ ko tuddee maam Cheikh Ibrahima waxtaan naa ci ak euh, Abdoul Aziz Diop ma ne ko dañoo waroon a seet mag ñi jëkkoon a fekk Serigne Touba gànnaar ñu tudde leen ko mu ne ma dinaa ci waxtaan ak sëriñ bi waaye man nekk ma dem Italie nekkuma fi conférence yi jàpp yow fekkee uma ko par sëriñ si di tuddee ko maam Thierno ndaw ma daay rek borom bayteeg maqaam mu doon waa daaru si doon ci koo xam ne kenn lañ si man ndax la sëriñ Massamba daan defal borom daaru di ko balee daaru man mii lañ ko rafaatale at mu jot dañuy def délégation ñëw fekk mu Touba bu ñuy jubee maago daaru une semaine ma ànd ak ñoom sang jaañ waa ma dul foo say duy ay kaar ay camion dem balee daaru mos ba mu set na ko sëriñ Massamba daan defee sukku Serigne Basiru Abdu Xudoos ñaanal ñu yeewu ñu su màggal ga dikkee ñu dem nekk fa joxe fa ay xéewal bu màggal ga jeex kon bis bi tey man sama bis la ñoom bañ nañu ko ba soxna Fatou Issa lañ may wooye te man waajur sëñ Masamba lañ ma tudde waaye cofeel gi ñu am ci man moo tax ñëpp Fatou Issa lañ ma wooye dëkk nañ bu baax ñu ngi sant bu baax sëñ bi ñu ngi siyaare sëñ Abbas bu baax am nañ mbégte bu baax ci teewaay di nuyu bu baax nag di joxe du yóbbu délégation bi maanaam muy góor mu jigéen dellu si waat nag di nuyu di siyaare si Ahmadou Muntaxa mi nga xam ni mooy xalifa yoonu murid di ko siyaare di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér di nuyu ñu ma àndal ñëpp kuréel yi fi nekk yëpp daanaka ñu ma àndal ñëpp mënuma leen a lim waaye maa ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di beral nuyoo daayira bi nga xam moo nekk fii ci Mauritanie dañ di ma beral dañ di ma dalal muy daayira wala xadd karam naa sax saala ahlu kafe ci teraanga ji baax yi yeeg lépp maa ngi leen di sant bu baax di jot leen ak sëñ si di sama diggante daayira Maam Jaara bi nekk Nouakchott soxna Joor Fall mi nga xam ne 2003 ba léegi ñu di ma fekk Poroxaan di ma jox ay teraanga kenn kon xam na ne daara yi ma daara yeeg ñeent ju nekk juróomi téeméer ñu ngi siy jàng te ma sas leen koddaayu Maam Jaara yi guddi Poroxaan bu ñu fanaanee jàng Poroxaan Maam Jaara yi wàcc kaamil ñu bind ak ñi ñu di leen décoré ay piis bassin riche la ñuy jënd dama ko indi Poroxaan ñu fanaanee wat du doon Maam Jaara ba bët set loolu Serigne Sidi dinaa la ko seera ndax ay at at at ñu di ko def 2003 ba léegi kon war naa seer sama dikkanteeg ñoom waa daal teraanga ju nekk dañ na koy indil Porokhane ci njiital soxna Joor ak soxna Aminta Cissé ak ñu fi nekk ñëpp waa sécurité bi yëpp seen njaboot lañ bokk ci daayira wala xarit kanam naa sar sar maa ngi leen di sant bu baax di jéggalu bu baax ci kàddu yi lu ci dëng rek ci man maa ngi koy bu baax di ñaan ñu teewaal fi déwén kenn bañ a wopp kenn bañ a manqué asalaamaaleykum wa rahmatulah. ku sos yoon wu baax. ku sos yoon yoon wu baax. ku xàll yoonu baax. Eh, ku la ca topp. ku ca topp. da nga ci am saw yoolu yow. da ci am saw yoolu yow. ba noppi am ci yoolu képp ku la ca topp. ba am ci yoolu képp ku la ci roy. waaw kon eh, moom mii de. kon moom mii. bokk na ci njëkk ànd ak ñun Sarsara. bokk na ci njëkk ànd ak moom ci Sarsara. waaw te ànd googu it. te ànd googu itam. dañul di law. dañul di law. waaw bi yéen ñi ñëpp. ñun ñii ñëpp. waaw ci ci loolu ngeen dugg. ci loolu lañ nekk. loolu nag dañ koy sant yàlla bu baax a baax. kon sant yàlla bu baax. mooy li ñu doon wax rek. mooy li ñu doon wax rek. mbooloom Sëñ Tuubaa mii moom. mbooloom Sëñ Tuubaa mii. Euh, seytaane amu ci yoon. seytaane amu ci yoon. tawaafu Iblisa li xeyri yantaxa. tawaafu Iblisa li xeyri yantaxa. wallaahu. wallaahu. lii baabal xuyóori. lii baabal xuyóori. fataxa. fataxa. loolu la sëñ Tuubaa wax. loolu la Cheikhul Xadim wax. maanaam Iblis tawaaf gi mu ko muy tawaaf. Iblis tawaaf gi muy tawaaf mooy di wër. jëmale na ko feneen furul moom. jëmale na ko feneen furul ci Cheikhul Xadim. waaw te mboolem bunti bunti yiw yi. te mbooleem buntu yiw yi. suñu borom ubbil na ko ko. yàlla ubbil na ma ko. waaw kon nag. kon nag. bu yàlla defee. bu yàlla defee. li ñu fi dajale. li ñu fi dajale. di am yéene yi. di am yéene yi. jubloo. jubloo. ziyaare ji ziyaare ji Sarsara Sarsara Sarsara ngir Serigne Touba ngir Cheikhul Khadim nañu rafet njort ne nañu rafet njort ni dugg nañ ci waxam ji mu wax ni dugg nañ ci waxam ji mu wax ni inna alladina ila Sarsara qad xasadu inna alladina ila Sarsara qad xasadu ziyaarati ziyaarati faaraqu daarayni aw zaara faaraqu daarayni aw zaara kon nag sant yàlla rek sant yàlla rek di leen sant yéen ñëpp di ñu sant ñun ñëpp waaw di xam ne kenn ku ci nekk di xam ni kenn ku ci nekk la la def nga ko la la def nga ko waaw ndax it ku ci nekk bu ci nekk loolu dong la yëkkati. loolu rek la yëkkati. waaw kon kon kon kon mënees naa naa dugg nañ ci ñaanuk sëriñ bi. nañ ci ñaanuk sëriñ bi. sëñ sëñ doon wax naan. Abdoulaye doon wax naan. fii ñuy def. fii du waaye ñaan la nangu ba noppi. waaye ñaan la gu nangu ba tàbbi rek tàbbi ci biir. ku bëgg ci biir. kon kon tàbbi googu. kon tàbbi googu. moo mooy firndeel jéego yii. mooy firndeel jéego yii. kon nag ñu ñaan suñu borom. kon nag tamit ñu ngi ñaan suñu borom. mu nangu lépp. mu nangu lépp. te dolli ñoo taw féexal. te dolli ñoo taw féexal. te fanqal ñu mbooleem loo xam ne. te fanqal ñu mbooleem loo xam ne. lu nu lu nar a yàqal la. lu ñu nar a yàqal la amiin. ci barkeeb suñu suñu suñu sang bi nga xam ne. ci barke suñu sang bi nga xam ne. suñu yaakaar ji nga xam ne. ak suñu yaakaar ji suñu borom. suñu borom. may na ko. may na ko. loo xam ne. loo xam ni. mayu ko kenn. mayu ko kenn. te may na ko. te may na ko. dugal ko ci. dugal ko ci. foo xam ne. foo xam ne. dara lu yàq mënu fa yegg. dara lu yàq mënu fa àgg. kon nag wax ji mu wax ne. kon nag wax ji mu wax ni. adxaltu nafsi. adxaltu nafsi. wa jamia ahli. wa jamia ahli. fi jay bi afdalil wara. fi jay bi afdalil wara. dil fadli. dil fadli. yàlla nañ dugg ci biir loolu. yàlla ci biir wax jooju la. jazaakumullahu anna xayran. jazaakumullahu anna wa kullu aamin. wa kullu aamin. wa antum bi xayr. wa antum bi xayr. ñu may ma rek. ñu may ko rek. moom mu jottali kàddu yooyu. mu jottali kàddu yooyu. suñu mbokk yi nga xam ne. suñu mbokk yi nga xam ne. ñoom lañ ñoom lañ fekk si. ñoom lañ fekk si. muy waa réew mi. muy waa réew mi. ci ci kalaam ci kalaam ak arab. ci kalaam ak arab. Eh, xam ngeen ne eh, sëriñ bi moom. xam ngeen ne sëriñ bi moom. Eh, dafa wax ne sunu borom. dafa wax ne suñu borom. wahaba allahu tabaraka wa taala. wahaba allahu tabaraka wa taala. li kaatibi hadihi alxuruf. li kaatibi hadihi alxuruf. alqur'ana. alqur'ana. wa lisaan alarab. wa lisaan alarab. wahaba lahu. wahaba lahu. wahaba lahuma. wahaba lahuma. fihima. fihima. ووهب له ووهب, ووهب له فيهما فيهما ما لم يكن لغيره قط ما لم يكن لغيره قط ولا يكون لغيره عود ولا يكون لغيره عود wallahu ala ma naqul wakil wallahu ala ma naqul wakil yàlla daf ko may alquran yàlla daf ko may alquran may ko làkkub arab may ko làkkub arab may ko ci ñaar yooyu may ko ci ñaar yooyu lu mësta may kenn lu mësta may kenn te dootu ko may kenn te dootu ko may keneen